waaw ñoo ngi ci box numéro 11 taxaw ak un très grand champion Alaaji Gueye bàyyi faalu élevage bi ñu bàyyi ko mu nuyoog élevage nuyoog waa Ladoum TV gannaaw boo nuyoo yow par nag nga wax ñu exposition bi nga def. ñuy nuyu gars yi di leen ziar suul sama doom ndey di nuyu nag waa Ladoum TV di kontaan si yéen di gis seen liggéey rafet na gars yi na leen a jàppale parce que yéen ngi liggéey liggéey bu rafet parce que ki lay jàllaleel li nga mënul jàllale kooku kenn mënu koo fay. loolu dafa am solo faaw ñu gars di ko bàyyi xel li ngeen def nii liggéey dugal ko ci YouTube mu àgg foo xam te ni su doon nit ki rek du ko fa àgg kon lu leen waaye fay jar na ko parce que liggéey bu rëy ngeen di liggéey ndax lu nit mënul suñu la ko defalee rek yaakaar naa kenn mënul fay loolu ginnaaw bi loolu ñu ñëw ci exposition bu ñëw ci foire bokk sàmm bi ñu ñëw nag ak union des pros ànd ak association bu ñuy wax union des pros ñu bokk ci nag nekk ci caay duñ ci loolu moo ñu indil tey ci foire bi ñu ñëw tey muy foire bokk sàmm ñëw indi fi ak exposition bu ñu fi exposé indi fi Petit Niang yaakaar naa axul élevage xam nañ ko pare dañuy jàbbali rek parce que doomu Saalum moom jeexal na ay wax loolu lañ fi indi exposé ak ay jabaram ak ay doomam pour présenter leen parce que foire concept la da ngay indi maal présenter ay doomam loolu moo tax a ñëw ci foire bi suul. tubaar fakkal la loolu am na solo macha allah kaddu loolu mooy kaddu yi bàyyi faalu élevage bi ki nga xamante ni si mi ngi dox ci élevage bi Alaaji Gueye waaju ñakk ki ñaan kuy def recrutement Alaaji Gueye dana fa dem seetul mi ngi lakk gasoilam seetul mi ngi lakk essence am seetul connexion bi mu siy jàllale bi mu ciy dépensé lépp ci propre moyen la koy defee kooku mooy Alaaji Gaye Baay Faalu élevage bi te jii nag ci biir exposition bi mu indi fii ndaanaan nag doomu Saalum te doomu Saalum buy raar ci doomu Saalum yi Alaaji nga présenté ñu Petit Niang mii nag ak lu élevage waa Ladoum TV xam kan mooy Petit Niang waaw waa Ladoum TV Petit Niang neex na présenté parce que Saalum kuy sa bàyyi rek Saalum su fa yemoon sax mu neex ñu ne ku sa almetu kafaal gi mooy toog muy dox tëdd muy dox nelaw muy dox dugg sa biir si randal sax sànni fa mer gàddu muy dox. kookooy. kookooy di doomu Saalum Saalum xam nga tax ma tuddee ko ma solo slogan boobu ne toog muy dox ku ko laalu rek sa càmm war nañ ko xoolaat produit am élevage moo ko soxla tey jii ba mooy rëccu ma lu ma ko doon recruter soo xoolee maar soo demee ba mën a jaay doomam bu góor wala ñu am ay demande loolu sant yàlla la. ay maal jaar na ci man mais doomam yu góor lu ma ci am moom aw ma ko woon ci élevage kon moom toog muy dox la macha allah produit yi gars yi soxla nañ ko commencé nañ ci génne di ci partage ak nii parce que élevage partage la ah mi ngi noonu mu nekk sët ci ado tamit ado nekk doomu booy séeréer kon yaakaar naa ne su boolee hauteur boolee doole boolee LCS kooku baalu ma ko dara ci ay production am des fois gars yi laaj na ma kii fan la gën a fooree ma ne ko lebalu ma ko hauteur lebalu ma ko LCS ko ossature lebalu ma ko rafet mooy beauté kon moom lépp la capable pour def ko Petit loo ko jox mu defal la prise te doom yaayu noonu ci kanam yëpp dina leer incha allah. kookoy Petit mi ngi mi ngi toll ci 18 mois macha allah di dugg ci 19 mois mu nekk xaar boo xam ne ni gars yi naan dugal ko ma nekk ko non kii day def ni baayam day ëkk di yónni ay doomam. doomam ji la ñu bari neenam dugal ko ci añeel ma ne leen non day xaar parce que foire bi nekkul lu ñu waaj mais dañoo am station boo xam te ni muy union des pros tey ñu def lu loolu tamit faa ngeen bàyyi ko xel ñu ñëw jàppale beneen association boo xam ne jël fi 15 box loolu du ay caaxaan 15 box su ñëwee bokk ko bi di fi def ay tranga ñëpp di àndandoo di xàccandoo di dóorandoo ñooñu ñoo ne ma yow tey far force nga ñëw ñu jël nag union des pros ne ma yaay capitaine union des pros kon waruma des ginnaaw faa ma ñëw mi ngi noonu voilà. waaw kon kooku mooy kaddu yi Alaaji Gueye mooy capitaine bi nga xamante ni si tey moo ñëw représenté union des pros. boo xoolee sélection bi nag ñu gis ci benn mbote bu terrible mbote bu extraordinaire alaaji mbote bi caaxaan jëlewu ko say loxo de. waaw am na ay demande ci foire bi sax gars ñu ngi koy laaj mais waraguma ko joxe ndax mooy taawam ci man taawam bu jigéen kon kooku dama ko war a lu tax ma gën ko bëgg a ba ñaax dama ko feral ak joxe yaay ji kon caaxaan jëlewu ko fi moo tax ma bàyyi ko fi en attendant les événements à suivre gars yi di ko xool. alaaji élevage partage mais bala nga. te gars yi te gars dañoo bëgg xeet bu mel. mais da ngay partager sa bopp ba pare soo ko joxe. sédd ba pare soo ko séddalee. te ku du ya njëkk ya wóor yi. <laughs> macha allah ah. loolu am na solo <laughs> dëggal dëggal Modou Samb de passage ñu ngi koy siyaare di bëggee ko waaw ñoom tamit dañoo jàpp ci sama élevage Mor Samb maal bi ma njëkk a juddule mu def ma champion muy John Sina dem es dem dem dem foiru adhère jël fa deuxième mar espoir moo ma ci may tëb Mor Samb mii sama première sixième bi lu ma may tëb dama koo gérer ñu laaj ma ko joxe ma ko mu am gëm-gëm bi yóbbu ko foire jël deuxième mar espoir kooku ak grâce à moom muy nekk do benn doomu njaw njaw ku ne xam ne Nations Unies moo ko jur kon waa waa bergerie Dame Lo muy Mor Samb ñoom it kenn demul des leen ginnaaw yemul foofu de mu joxati ma doomu kaar-kaar boo xam te ni dafa marqué empreinte tamit sama élevage moo jur doomu booy taala xam nga ku jël doomu kaar-kaar teg ko ci booy taala jox la famel boobu desa wallaay wallaay desalu tula dara oui ma xar bi ma jaay ay millions guñu tey yëg sama bopp moo ma ko jox mi ngi nii macha allah kon ñoom dañ leen di sant di leen gërëm muy doom booy taala mi ngi fii yaa ngi nekk doomu kaar-kaar du ay foo du ay caaxaan macha allah loolu am na solo jëlal jëlal ma jëlal ma jëlal ma Mor Samb jëlal ma Mor Samb waaw kàddu rafet na mhm. témoignage yi rafet na mhm. kookooy Mor Samba Mor Samba yan kàddu ngay dolli alaaji waa di wax ne ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen uh, Laadum di Laadum TV di leen ziyaare bu baax waa di wax ne alaaji dafa nekk suñu grand nekk yi nekk suñu grand bu baax nag wax dëgg yàlla rakam laa njëkk a xamanteel mais bi ma xamee moom réccu ma ko xar nag moo ñu gën a xamante woon nañ mais dama ko daan doom rek nuyu ko grand Guèye daal di doom jàll mais xar moo ñu boole waaw mu nekk ku baax nag ku baax sax wax dëgg yàlla ndax xar yi euh, dëgg la bu la ci comme boo ci njëkkee nekk des fois nga ñëw ci nit gis ay xaram nga gis ni muy sàmmee nga ne ko ah est-ce doo def lii def lii def moom dëgërul boobu ci loolu boo ko waxee bu xoolee xam ne li nga ko wax mooy li gën ci moom rek ci saa sa koy def waaw te macha allah jàmbaar la wax dëgg yàlla jàmbaar la. di ko ñaanal mu jëm ca kaw ca kanam bu baax a baax ci élevage bi yàlla defal ko ci ndam bu baax a baax ndax jàmm nag la yéene ñëpp waaw nit bu yéenee jàmm ñëpp rek daa war a am jàmm ak i xéewal yàlla na ko yàlla defal nag barke Alxuraanu Karim barke Serigne Touba kontaan nañ ci moom kontaan nañ ci moom baax a kooku mooy kàddu yu Mor Samba tubaar fakkaala moom it mu nekk ci élevage bi ànd ak bergerie daam lool di liggéey liggéey bu rafet rafet ci élevage bi jërë ngeen jëf ñu dugg ci biir nag càmm càmm gi. wan leen nag Petit Niang ak njabootam. waaji nga fàttali ñu bergerie bi fan la nekk ak sa numéro téléphone pour ku bëgg ñëw seeti production Petit Niang. waaw macha allah ah, bergerie mi ngi caare Tali Diallo foofu la adresse mi nekk euh, numéro bergerie mi ngi nekk bergerie Sëñ Fallou ah bergerie Sëñ Fallou parce que ñun moom ay taalibe leen. mi ngi noonu Galas Baye Mbène numéro téléphone bi 77 055 61 82 mooy orange bi tigo bi 608 képp ku soxla Baye Fallou Thiam gi rek soo ko woowee si numéro boobu di nga ko jot ah koo koy Alaaji Gaye Baye Fallou Thiam gi tout est possible toog muy bërëngu